waaw li ñuy mën a wax rek mooy euh, d'abord dañuy sant yàlla di ñaanal nga xam ne kii moo fi jógee muy suñu xarit euh, professeur Malick Ndiaye muy ku ñëpp ràññee woon ci ci Sénégal ndax ay position am yaakaar naa ne boo d'accord rek moom ak boo d'accordul bokk na ko xam ni kii lépp loo xam ne lii askan wi da ko daan xeex kenn du ko jiitu ci kenn du ci jiitu donc loolu la ñu ko xamee kon Sénégal ñàkk na waaye nag Jolof ñàkk na Jolof ñàkk na parce que Malick mii euh, te daawu ko doxee daawu ko waxee maamam mooy Bouna Alboury Ndiaye ndax boo naal bëri moo jur yaayam kon lu am solo loo loo xam ne lii waroon na ko mën a taxawee eh, di ko wane te wanewu ko ci ci ci taxawaayam waaye mi ngi doon taxawu Jolof fi nga xam ne fii fa la bokk fa la cosaanoo loolu moo waral tey Jolof kenn desul pour ñëw également accompagner ko à sa dernière demeure. maa ngi jël kaddu fii kaddu gu ma jafe lool nag waaye lu mënul ñàkk moom hmm. da nga koy def rek. kàddu gi may jël dama koy jël ci turu président de la république Macky jël ko ci turu ñépp ñi nga xam ne ni ñoo ko teewal fii di kenn koo xam ne ni xëy na moom waruñu koon a tudd sax muy le ministre Aly Ngouille Ndiaye ndax xam nañu fi mu bokk ak fi mu féete mm. ci turu ki nga xam ne nii ci wàllu liggéey moo doon kilifaam muy le ministre professeur Balde Moussa ak le ministre Omar Sarr ak ñeneen ñoo xam ne ni ñu ngi ci biir boo limee mën nga bañ a motale waaye bu ma ci tuddee ñooñu rek doy na sëkk ndax ñeneen ci des ñëpp mën nañoo tafu ci seen ginnaaw kàddu gi may jël nag ci turu président Euh, damay wax ne ñi ma koy jëkk a teg ci seen loxo mooy ñi ma jàkkaar loolu muy waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñoom bu ñu teewee teñ ne bu ñu jógee fii foofa lañ koy yóbbu kon defe naa ne yaakaar am na jox leen nuyoo ak njaalu président de la république aussi yoon la léegi professeur mbay wax na ko ñoom ñëpp teew nañu ndax sunu sang bu tedd bi sëriñ mun ba Basiru nga xam ne dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu àggale ay naalam ak wér-gu-yaram gu mat sëkk waaye mu am ci kenn koo xam ne nii professeur wax na ko bu santuloon Mbàkke dina fi ñëw hmm. ndax ca meen ma la waaye mën nañ koo wax si teggine gone kon sëñ Abdourahman jël nañ lépp teg ko ci sa loxo ndax cër boobu président nag bu ñu yebalee fii dinañ ci sawar lool lool lool ndax bu ko deful nit noonu dinañ ñëw ndax cër yu bari yu ñu seq ak Malick tey jii moom ma nga ca dëgg nun ñoo ngi nii lu ñu neex wax xëy na yàlla suñu boroom rek moo mën a tiim tiim ñu ñu ragal ko di wax leneen lii ma yor nii matul une semaine Malick daf ma ko yebal jox ma ko ne ma boo ko liiree ba noppi nga wax ma loo ci xalaat waaye bu ko jox kilifa gi liir naa ko jotuma ko wax la ma ci xalaat kon sunu boroom moom rek moo am moo man ma bëgg a indi benn seede seede bi may indi xëy na ñu bari mii fii man nañ cee taxaw wax ci tey ci suba bi ma yëgee mbir mi li ma jëkk bind dama ne j'ai perdu un nami du M23. te loolu lu tax ma wax ko Malick Ndiaye professeur dafa nekkoon nit koo xam ne nii nitu dëgg la amoon xam-xam mu màcc lool nag ci mbirum sociologie waaye yemutoon foofu rek lii Babacar wax léegi ne Malick était un fin scientifique il a parfaitement raison ñu nekk ci mbir xëy na wéetoon nañ ci nit ñi sax dawoon nun ñëw waxtu bu nit ñi ñëween kenn daawul xam ku def lu ne waaye tey ma wax lu Malick doon def M23 base bu fa mas a taxaw barrière bu fa mas a taxaw lépp luñ fa mas a def ci ring walla ci plateau ñeenti nit ñeenti nit laa wax ak man ñoo ko fa doon def fajar la ñuy ñëw 6 heures du matin am ñoo xam ne nii dañuy ñëw dañu ñu am ñeneen ñoo xam ne nii dañuy ñëw di wax leneen ak def leneen mais Malick Ndiaye ndem si yàlla Ibès Diagne Abdoulaye Mbodj mi nekkoon directeur u AIBD ak ay xale yoo xam ne nii ñu ngi ci biir fii lu M23 mës a def mës a organiser laa wax ci dënd yépp nag ndakaarook fépp Malick Ndiaye jiitu na ca loxo ma nga ca jëfa ma nga ca poosa sama nga ca loola Malick da ko seqoon ak man am lu mu ci daan bokk xëy na ma di ko yëgal président de la république ca jamono yooyu waaye ci jamono yi nga xam ne yi tamit ñëw nañu yàlla indi li mu def li mu def ba ñu bokk ak moom kon Malick mënuñoo wax ci moom wax ju jeex sunu yéene ci moom sunu pas-pas ci moom moo doon moom yéeneem moo doon moom pas-pasam ci réewum senegal Malick kenn gënu koon a bëgg senegal Malick kenn gënu koon a bëgg aw askanam Malick kenn gënu koon a bëgg Serigne Touba du kenn xaadimu rasul kon Malick njaay li nu dese ak moom li nu dese ak moom mm. yàlla na nu yàlla mi nga xam ne ni moom moo am moo man dimbali ñu bañ mën koo mottuleeg moom mooy sunu xel dem ci moom nu julli ñaanal ko walla nu def sunuy baat alxuraan karim ñaanal ko Malick yàlla na ko yàlla xare àjjana soxna si euh, man dey minantewuñu waaye dégg naa sa tur lu bari xam naa ne yow tamit dégg nga sama tur lu bari tey ci suba bi kilifa gi joxe ndigal ci la Mahmoud ñëw ne ma demal ci levée du corps bi man maa ngi dem ci maison mortuaire bi loolu firnde la waaye beneen firnde bi yónni bi ñu président yónni fii Aly njaay dina mottali lépp ndax moom paaka ñaari boor la ci mbir mi mhm. ci kër gi la bokk waaye bokk aussi ci ñi nga xam ne nii ñooy tànk loxo ak baatu président de la république Macky Sall. macha allah. sëriñ Abdourahmane ñun day wax ji gudd na lool baa ngi ciy jéggalu bu baax a baax ndax bu nu toogee seen kanam waru ñoo yëkkati kàddu mais lii dafa mënut a ñàkk ni ñu leen dénkee suñu bopp feddliwaat ko noonu lañu leen di dënkee Malick njaay mi nga xam ne tey yéen rek yéen a mën dara ci moom ñun mënatuñu dara ci moom lu dul ñaanal ko waaye yéen nag man ngeen ci moom ñun ñii bokk ci waa kër xaadimu rasul sëriñ Touba mm-hmm. wallaay xam nañ ne mën ngeen ci moom li ngeen mën ci moom yal na yàlla taxaw yal na yàlla rafetal yal na yàlla nungu ba yéene yi mën a àgg ci moom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñépp wax nag dafa jafe lool lu ci dëng rekk sama sama sama xër ak sama tuutee di waaye wax dëgg yàlla du ca yéeney ka ma yónni doon pas-pasam man mii la lu ci manqué rek man mii la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë jëf jërë jëf wasalaam min annabiina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin fi sidrin maxdudin wa talhin mamdudin wa zillin mamdudin waadi wa duxuli jannati subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi amin yàlla yàlla